procureur noonu la ko yéene gi xëy pisale lu euh, de la République noonu la euh, nañ ko niki altine ji gi moo xëy pisal lu ni mel leneen itamit loo xam ne yéene gi xëy na ko fësata mooy euh, covid 19 fële ci dalal jàmm jàmm ne daal te léegi moom la fay faatu ci ay doomu aadama jéggi ne dayo du mu néew néew bés bu yàlla sàkkaru ci tolloog juróom jàpp juróom benn doomu aadama daañu fa ñàkk seen bakkan yéen gi moo euh, moo xëyee fesal loolu yi bu dee yéen gi di la tribune dafa xëyee da la siwaat ci procédure maanaam yoon wi nga xam moom la gaay rëdd euh, ngir muri malaanu kiraa yu Sonko yéen gi ci loolu xëy da la siwaat euh, yéen gi ne assemblée nationale bu njëkk centre foos sandisi ba dëkk ay takku der la euh, commission ad bi daañ ko fas yéene installé ni ki altine di fukki fan ak juróom ci weeru ko février euh, commission boobu nag yéenam ak bëgg maanaam daal li ko tax a jóg mooy déglu kii di Ousmane Sonko euh, rapport bi kon daañu ko fas yéene présenté fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru ko février manifestation bi amoon fii diwaanu Ndakaaru ñaar fukki ndaw ak benn mujj nañ leen a ñibbi seen kër yéen a bu dee yéen kaay gi di dafa xëy dellu si waat ci ndaje mi nga xam ne nii député yi doon ni ki wa ko soxal euh, bureau nañu nag ba finalement euh, gars daal euh, ñu ngi ci tànki kon jébbal Ousmane Sonko yoon yéen kaay gi di les dafa xëyee dellu si waat dañu xamal leeg minute par minute ndaje nga xam ne nii bureau pencum ndawi doon nañ ko amal yéen gi ne fi mu toll daal Ousmane Sonko kon ma nga jëm ci mort politique noonu la ko yéen kaay gi xëy fesal ndax bureau pencum ndawi voté nañu démb euh, ne daal ànd nañu ngir daal ñu muuri malaanu kiraayu député Ousmane Sonko fukk ak juróom ñaar ci la toll woon ñaar ñi ne déet fukk ak juróom yi ñoo ne waaw euh, la ak ku naan yaay Mané Albis euh, commission ad bi kon daañu ko fas at installé niki altine di yem fukk fan ak juróom ci weeru février laataa kon ñoo ko ratifié ci plénière niki àllarba di yem ak fan ak juróom-ñaar ci weeru février yéen kaay di les échos moo na ko États-Unis yónnee nañ ko yenn réew yi ñu ne euh, dañoo lànk ne kon duñu jox euh, ñii di góor jigéen ñeek yeneen yu ni mel euh, seen àq ak seen yelleef yéen kaay gi nag fi mu toll nii rek ak moom mii di Joe Biden nee na daal incha allah rabi yéenam ak bëgg-bëgg daal mooy fexe ba téye daal loxo maanaam benn ndimbal dootul jóge ci États-Unis dem ci réew yooyu nga xam dañoo lànk ne kon Euh, du ñu jox daal nguur yooyu jigéen seen ak yéenekaay gi moo xëy parce que lu mel euh, bu weesoolu tamit daañu leen fexe daal xañ ay visa moo xam seen dirigeant yi la ba ci yéen seen fonctionnaire yéenekaay gii di Les Échos kon moo xëy xibaar boobulee bu dee yéenekaay gii di Vox Populi dafa xëyee dellu si waat ci malaanu kilaayu député Ousmane Sonko Euh, bureau bi ak président daal fu mu toll nii xaal ñu ngay xalal yoon wi euh, procureur de la république yéen a di Vox Populi ci loolu la xëy a kaay gii di Sud Quotidien xëy dellu si waat ci levée unité parlementaire bu Ousmane Sonko ñas daal fu mu toll nii nangul na Serigne Bassirou ay càkkutéefam yéen a kaay di Sud Quotidien euh, ci loolu la xëy dellu si waat yéen a kaay gii di dafa xëy dellu si waat ci lu jëm ci procureur bi nga xam ne jamono ji soobu na ci xeex bi lan moo tax procureur Serigne Bassirou a visé ci mais Euh, xëye euh, fësale euh, yéen kaay gii di direct news xëye dalu si waat ci juno gi nga xam ne meeku nañ ko ci audition yi nga xam ni waa gendarmerie doon nañ ko amal mu soxal mbiru Ousmane ak soxna si di Adji Sarr moom Adji Sarr nag xam ne daal séance bu njëkk bi nga xam jot na ko def Ousmane Sonko la mu ko njëkk wax mooy est ce que xame nga ma soxna si ne ko jot mu ne ko nag est xam nga ne place bi nga nekk tey di ma maase bëri ci ay xale jigéen yoo xam ne nii bëgg nañ faa ne yéen kaay gi moo xëy fësal lu ni mel Euh, yéen kaay gi ne Adji Sarr moom nee na jot na ay message yoo xam mu ngi bàyyi ko ci Ousmane Sonko laata kon moo koy violé ñeenteel bi yoon waaye moom si jëm boppam moo jël décision daal di koy supprimer euh, deuxième masseuse bi nag ne Aïssata Ba moom si jëm boppam moo wax patron Euh, ne ko daal dégg na soxna Adji Sarr euh, ne di wax benn waaye di laaj ndax ba nga seq ak Ousmane Sonko Ousmane Sonko daanu na ci sa mu ne waaw noonu la ko yéene kaay gii direct news xëyee fësale bu dee yéene kaay gii di dafa xëy dalal Maître El ci laaj ak tontu dox ci diggante mag suñu naatango yi moom Maître El ma ngay dellu siwaat euh, ci li tax waa bâtonnier de l'ordre des avocats jël daal di annulé conférence de presse bi nga xam attaque Ousmane Sonko moom euh, El Hadj Diouf nag rattewul benn yoon avocat yi nga xam ni ñooy layil kii di Ousmane Sonko noonu la ko yéene kaay gii di source a xëyee fësale yéene kaay gii di le quotidien xëyee dellu si waat euh, di koy àggee la nga xam ni moom la taalibam ji jamono ji mu jàpp ne njiite réew Macky moo nekk ci ginnaaw ab kootoo la nag woo na Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xamal ko ne ko loolu yoonam nekku ci euh, mbiri da ab affaire privée la ñaari citoyen ñoo daje kon yoonam

yéen kaay gii di Le Quotidien moom dafa xëyee amal ab taxaw seetlu jëmale ko ci salon de massage yi lan moo tax suñu kilifa rek ku ci jóg rek dem utili salon de massage yooyu lépp ndax mbir yi yemul ci dàmp kese waaye dafa am leneen loo xam ne ni moo làqu ci suuf yéen kaay gii di Le kon ci loolu la xëyee dellu si l'exclusif moom dafa xëyee dellu si waat euh, wala boole bu dee yéen kaay gii di suñu làmb kon euh, dafa xëyee euh, dellu si waat ci combat yi nga xam ne ci combat yi nga xam ko nemeeku ci VIP yi nekk fële ca diwaanu euh, Géejawaay yéen kaay gi nag euh, ñeent lañ ñoo xam ni euh, saison bi daanaka seen saison la nar a doon noonu la ko yéen kaay gi xëy fësadee ndax ku ci mel ni Balla Gaye 2 am na combat Lac 2 am na combat Guy gi am na combat Abdou Diouf naka noonu yéen kaay gi suñu lamb kon ci combat yooyu la xëy dellu si waat tey ji ban mbokki lii moo doonoon li gënoon a fës ci bopp yëglekaay yàq léegi incha allahu rabbi ci xibaaru benn waxtu yi ci digg bëccëg gi lay doon ak Seydina Omar Gueye yemook ñuy ndar képp li frusé woon ci wàllu xibaar